5. Euh, daje bi li ko waral mooy terrain bii ñu nekk tey nga xam ni dafa bokk ci patrimoine nu Hamo euh, 5 donc ci plan de masse bi nga xam ni moo régir fii yëpp terrain bi daf ci nekkoon daf ci nekk euh, amoon benn destination bu nga xam ni communautaire mu mel ni infrastructure éducative lañ ko war a def ci début ba ah ba jëmmi jamono école boobu ñu fa waroon a def. ñu affecté ko un un particulier bu bëgg def école privée alors que école publique waroon doon. ah ñu jóg ci di ko ba loola ñu delloo ko gannaaw booba ba léegi nag terrain bi euh, en suspense 89 ba 85 kenn waxatu ci à partir de 85 ñu gis ni 80. non 85. 2005 2005 89 ba 2005 j'allais dire. 2005 ñu gis ni am keneen ku jëlaat terrain bi ci loxo yi kooka nga xam ne moo koy jëkkoon a yor te yàlla def mu mu mu làqu féete ginnaaw euh, léegi ay ay ay héritier jaay ko kooku ñëw aussi daal di commencé waat liggéey ñu jogaat ci xeex bi jógaat ci xeex bi ba ñu arrêté travaux yi léegi nag problème bi ci gàttal mooy euh, terrain bi am na ay changement de destination am na ay changement également de propriétaire te loolu yëpp itam euh, ñun ki ñuy waxal mooy état

donc terrain en relation avec la commune va servir n'est-ce pas à combler ce gap là euh, de, manque d'infrastructures de formation professionnelle pour sauver la jeunesse euh, euh, garantir au moins une qualification professionnelle et des emplois mais aussi nous avons nous pour le terrain ndax nañu la population yàlla def na nag ñu taxaw ñun en tant que responsable ba xale yi ñu maîtriser leen de kon musiba am kon ñu ne nag loolu lañu bañ mu am loolu la bañ mu am léegi nag ñu ngi interpeller état au plus haut niveau pour que ñu jël rapidement ay décisions par rapport à ce terrain là population yi fañ taxaw lañ taxaw pour ñoom bu ñu terrain bii duñ ci dellu gannaaw xanaa ñu dem ba xam ne nag léegi doole ak ak ak ak ak ak doole bo kisah kau, sen kaw yo xamni xeyna amatuñu pexé